salaamaaleykum mbokk internet seen actu 44 point com nuyu nañ leen bu baax di leen jaajëfal ñoo ngi fii ba biir Yoff euh, toxantu fii ci fa fas yéene leen defar reportage bu am solo euh, ci coow li nga xam ne la na biir Yoff entre Moustapha Tall ak Ablaye Diouf saar euh, kilifa gi nuyu naa la. waaw ñoo ngi lay fay. Ibrahima ñu gën ko xam si Ibu Dieng. fay soxna si. Abdou Ndoye ñu gën ko xam si Mbuus Ndoye waaw. Alsaan Mbengue. moo juuf la. soxna Adama Diouf ñu may dakantale séeréer sans frontière fii ci Ngapro. Mami Lay. tur bi raan la. Bamar. Daouda Mbengue. ah ñun de dañoo gis ne avancement mooy dugg si si biir Yoff parce que jamono ji nga xamante ne lañ toll ab laa Sarr ñun ñun ñun ndawi Yoff sentiruñ suñu bopp si moom kon buñ gisee koo xamante ne dafa dugg si biir Yoff ngir jàppale ak ak Yoff ñu dañuy kontaan si loolu fas yéene ci lépp matuwaay yi ak lépp loo xamante ne moom la doon pour ñu ànd ak moom dañuy jéem a def le tout ba ànd ak euh, Moustapha Tall incha allah. tool fi nekk moom ku jot ku ne lu jot lu ne ah coowam Ablaye nag fi la dëkk Moustapha fi la dëkk coow war na mën a bañ a am mais nag kenn ku si nekk tamit xam nga lii nga bëgg peut-être Ablaye li mu nekk arrangé wul Moustapha. kon Moustapha bu taxawee ngir jële fi Ablaye coo day am parce que ablaay fi la dëkk bon yàlla dogal aussi mooy mooy maire bi Moustapha maire lay yootu man na ko am ni mu ko amee moom parce que beneen maire moo fi newoon loo gis rek dañ koy deewoo rek ba ker ba yàlla def li man de sama yëg-yëg moom mooy euh, liggéey bi am na solo si cadre euh, li nga xamante ne moom mooy place yi nga xamante ne moom la fi def waaw mais si beneen cadre aussi ñun bu ñuy wax si wàllu football la ñuy wax ak programme yi parce que bu ñuy xulli ñun si football la ñuy yëngu te boo ba léegi suñu terrain bi mu ngi nekk fii travaux boo xamante ne mënul àgga boobu ba léegi depuis plus de quatre ans xaw ma cinq ans travaux yi mu ngi fi mënul àgga te ñun soxlaa nañ tamit mu jàppale ñu si côté boobu nga xamante ne ñun war nañu mën a bañ a dem di fay ji fen fu dul suñu dëkk lañ am suñu terrain daal mu jéem a fexe nu mu ñu ko defaralee ba nga xamante ne tey dinañ si mën a football ñun en tant que footballeur yi sportif yi yoof waay parce que RS Yoff mu ngi si dëkk bi di dem di fay ji feneen di dem di jouer ji ta ku si nekk da ngay bëgg di jouer si sa dëkk te ñun suñu équipe bi booy xulli mu ngi si national de national 1 la ni boobu ba léegi amuñu fenn foo xamante ni war nañ faa mën a jouer euh, si suñu dëkk gars yi supporters yi di ñëw di mën a fekkase match yi mais lu dul di génne di dem di waal yaani feneen loolu moom du yoon parce que maire bi war na mën a taxaw ñi nga xamante ne ñooy sportif yi quoi. jafe yi nekk si Yoff ah wax dëgg yàlla jeunesse bi da gisuñu seen bopp ak ah, ko mu mën a doon jeunesse bi moom wax dëgg yàlla ki gis seen bopp parce que man mi ngay gis nii lom douze métiers lay liggéey waaw lu kenn moo ay fay lu maire moom ay fay lu leneen moo may fay man maay fay sama bopp ku ma oowul ngaccoloo ma wala tojloo ma bâtiment wala marché ma ambulance ma toog nii dara duma ko yor kon maire bi wax dëgg yàlla ñun jeunesse bi gis ñu suñu bopp quoi franchement parler loolu mooy problème bi quoi te nga bu ma soñoon tamit maire bi buñ koy jox ñu jox ko koo xamante ne nii xam nga am na yërmande si doomu aadama yi quoi kon ku mel ni Birame Gningue Birame Gningue bu nga joxoon maire bi Yoff gépp dinañ si gis seen bopp kon affaire bi Birame la ko quoi franchement parler parce que ñi fi nekk ñëpp seen bopp leen fi nekkal waa loolu mooy wax ji quoi voilà. Yoff fii lan mooy mooy vraiment euh, yow va mal mais noonu la mën a demee parce que ndaw yi yëpp kenn mënu leen a wutal liggéey il faut ñun ñoo jéem a engagé wu dóori waar jàppale ki fi nekk mu dem parce que Diouf Sarr moom ah bienvenue dëgg dëgg Yoff liggéey na fi liggéey bu set wecc mais dafa mënul jàppale ñëpp lu nit ñi bëgg moo mënul ne nit ñoo war a góorgóorlu yor suñu engagement bop waa xam ne euh, dëkk bi dëkku ñëpp la ku góorgóorlu ñu jàppale ñu. ba tey itam ñun itam ñu ngi ñaan bu fekkente moom ci lu fi mu teg tànkam bu ko continuer ñun ñu ngeek moom fu mu teg tànkam bu fi nekkee ñun ñu ngeek moom mais bu ko bàyyi ñun nekkuñu ak moom man fii man maa fi représentant trois koñ yëpp man maa leen boot maa ngi liggéey ak femme yi di politicien boo xam ne ñëpp ñoo ko ràññee waa ràññee ma ci Séeréer sans frontière jaataage euh, nag bëgg nañu ku ñu jàppale bu baax a baax parce que man ay jigéen laa àndal te damaa bëgg ku leen jàppale euh, Kanta Diouf Sarr moom sama nit la vraiment sama nit la. waaw waaw man moom pare naa euh, pour Diouf Sarr jël mairie yoof bi parce que gisuñu fi keneen ko gën ñun gisuñu ko gisuñu ko ñun waa ñun waa Yoff gisuñu ko bu ñu sañoon daal moom mu gën a góorgóorlu gën a am engagement gën a fagaru te ñun ñu ngi ci ginnaawam parce que ay ndaw lañu te jigéen mooy gox te jigéen ñu jog nañu pour jàppale Diouf Sarr bu leen jàppale ñu jàppale ko bu leen jàppale wul a ñu xool ku gën parce que ñun moom dëgg rek ñoo ñu fi tenk dëgg rek moo ñu fi tënk. dañu ñaan yàlla bàyyi ko rek waaw nag yàlla bàyyi bu baax baax mu yokk mu yokk li mu bëgg rek yàlla na ko yàlla jox li rek yàlla yàlla ko jot baax a baax liggéey bi lool man man si laa liggéey nii sax ay ay ay at si laa liggéey fa la bu liggéey waaw liggéey waaw ba baax waaw kontaan nañ si de waaw lool yàlla na ko yàlla jàppale rek rek bàyyi laa séeri waaw bon maire bi moom euh, ñu ngi gis liggéeyam mais am na ay manquement nag quoi buñ sañoon mu gën a yokk dooleem quoi waaw parce que ñun ñëpp ay jeunes lañ ñun ku ku fi toog rek na nekk kuy defar quoi ñun amuñu problème kii wala que ku fi toog daal lañ bëgg mooy mu defar dëkk bi quoi waaw ñun loolu mooy suñu philosophie si waaw. waaw parce que ñun moom ku mel ni man moom ñun ay porteur de voix lañ quoi comme man dafa am si benn business bu ma nekk boo xamante ni candidat bu nekk day ñëw si man. man amuma amuma droit ciblé kenn xam nga man amuma droit taxaw faro faro kenn mais daal li li ñu intéressé mooy muy maire bi ak kuy ñëw ak ku fi mënti nekk li ñuy intéressé mooy na taxawu jeunes yi dëkk bi taxawu dëkk bi quoi parce que yoof yoof war na nga gis benn xa benn xar kanam bu bi bii yoof yoof dafa nekk en retard par rapport ak position am quoi waaw yoof mënoon na gën avancé muy Abdoulaye Diouf Sarr muy keneen ak keneen ku ku si nekk possibilité yi nekk yow pour nga mën ko liggéeyee mu ngi fi quoi donc pour man question de volonté rek moo fi nekk war na yow war na weesu fii quoi waaw war na weesu fii. Euh, si politique. waaw am na fi Seydou Baye Seydou Seydina Issa Samb moom mooy euh, jiite jeunesse sociale si moom mu ngi fi tamit fes na trop nit ñi xam nañ ko xam nga am na ñu tudd ak comme ay cawbaan ñu ngi fi. xam nga am na ñeneen mais ñaar ñi ma la wax moom ay nit la yoo xamante nii fës nañ si politique yof trop quoi surtout Baye Sidi moom. mu ngi laaj maire bi te ñu xam nañ que si la quoi waaw mu ngi nekk si Khalifa Sall waaw. liggéeyu maire bi ah dese naa see kontaan de wax dëgg na kontaan parce que man liggéey bi mu liggéey fii nii gisuma suma bopp quoi wax dëgg na yàlla gisuma suma bopp. parce que genre yii nii amu fi benn njariñ bu fa dëgg neex loolu moom xam naa ne xam naa ko si ah man de suma ma mu dem keneen yow toog waaw. est-ce que man moom gisaguma kenn quoi parce que ñi fi nekk dalaguñu sama xel waaw. non instant yi ñu nii moom kontaan ma si ñoom bu fa dëgg neex yàlla moom est-ce ñu nii kontaan ma si ñoom. Ah, loolu maa ngi dégg gars yi si wax nii rek xam nga ay Moustapha Talla mais ñaar ñooñu moom man daluñu sama xew la instant yi ñu toll nii xam naa xam naa keneen yow moom am na benn wàllaayam bu may dégg sax mais xam nga gisaguma ko xamalaguma dara lool moo tax. waaw euh, jafe-jafe yi bari na. Euh, fii ci yof ndax euh, secteur yu bari aussi dafa taxaw quoi maanaam euh, pêche bi parce que boo ne Yoff secteur la boo xamante ne bi ñu ci bari dañuy yëngatu ci wàllu géej gi te vraiment am nañu fi ay jafe dëgg yàlla am nañuy jafe-jafe aussi si quai de yi am nañuy jafe-jafe si stade bi parce que fii Yoff am nañu stade fii donc stade bi depuis boobu ba léegi stade bi mënul pare Ah, ah, <laughs> ñu ngi eh, jéggaani ji si yeneen kii ak yu demee noonu donc eh, am na ñuy jëfi-jëfi aussi si wàllu terrain yi donc terrain yoo xamante ne yi yoof moomoon ak yeneen ak yeneen a ah, jafe yi am ci yoof tey mënu mu fi di ko <laughs> waaw xam nga ku nekk rek ak sa gis-gis mais man suma gis-gis franchement mooy liggéeyu maire bi dafa des si entre moom ak population parce que benn maire bi talul talul yof donc maire la ministre la te lu bari aussi dafa sooxe si yof yof am na yu bari yoo xam ne war nañ ko fi mën a def mais ñoom defuñu ko mooy jafe-jafe yi nga xamante yi ma lay wax nii pour problème emploi donc dañu dem bi seen mandat jeex ñuy door a embaucher ay nit waroon nañu mën a jël ay nit yóbbu leen mais ay contrat lañ fiy def ci problème mu bale yi ak euh, ak yu demee noonu te ñii fiy bale aussi ñu si bëri dañuy feebar donc euh, voilà jafe-jafe loolu aussi euh, bokk na ci li nga xamante ne li moom mooy liggéeyuñu ko donc man damay wax ne maire bi du mën a def fi dara mais aussi li mu waroon a def politique bi mu waroon def fii ci maire bi politique d'emploi dimbali la jeunesse ak euh, dëkk bi yokk dëkk bi mën a développer développement boobu aussi ñoom defuñu ko fii franchement. waaw non xam nga même bu fekkonte ne sax nit ku nekk nit da nga war a am xel am na yoo xamante ne aussi. Euh, bu ñu la ko proposé aussi yow war nga topp sa tolluwaay fenn na fi war nga ko mën a bañ ko. ñun Abdoulaye Diouf Sarr tey jii li nga xamante ne moom lañ ko doon séentu séentu dañ ko gisul si moom parce que tey jii Abdoulaye Diouf Sarr bu mu mënti toll si réew mi grâce à Yoff dañ ko jàppale si côté yëpp mais liñ naan daf ñu wor parce que tey jii liñ doon séentu si moom gisuñ ko si si moom man daal gisuma benn côté boo xamante ne euh, defal na ko Yoff noonoo li mu war a def dëgg defu ko euh, te tey jii nii jeunes yi sax exemple sport pour sport bu normal mënuñ ko am parce que tey jii suñu terrain bi waroon na mën a euh, weesu fii mu nekk nii vraiment man gisuma dara loo xam te ne Abdoulaye Diouf Sarr defal nañu ko vraiment te nga paru la dëkk te si koñ bii ngeen ñëw nii fii la dëkk mais xoolal koñ bi ni mu mel xam nga ne ku bëgg a jàppale Yoff du du doxalee ni mu doxalee Moustapha lan lan lan ngeen ñu mën a wax ci moom ci loo xamante ne nii def na ko biir yoof ba tax ngeen euh, jublu ko jox ko bopp. Ah, ah, a Moustapha Tall daal jàppaleen yoof ñoo si sentir seen boppa ni mu ni mu taxawoo biir yoof bëri na duñ si doon lim duñ fi jóg suñuy suñu yaay ak suñu papa yeeg ñëpp ñoo ngi koy sant di ko gërëm paa yeeg mère yi ñëpp a ngi nii taxaw kooko ci laaj mën na si seede si moom loo xamante ne ëpp na livre léegi seen ànd ñoom ñaar lu ngeen ci gis. ah ànd boobu noonu du ma gis ne du dem parce que kuy kuy kuy gas la ak kuy suul waaw ànd boobu moom loolu laa la si man tontu mooy du ma gis mu dem parce que kuy gas la ak kuy suul ndax Moustapha day defar Abdoulaye Diouf Sarr day yàq kon kuy ak kuy suul. ah non manuma si sori parce que man gisuma lu mu liggéey waaw xam nga kenn ku ne da ngay wax te yàlla rek tax bu defaroon ba mu baax it man manuma gis loolu parce que mooy loolu daal am na loo xamante ne manuma si yegg. waaw manuma si sori si côté. ñu xëy gis ne ci paasu Facebook Ablaye Diouf Sarr xëy nañ def fa benn post ne Fatal dem na fekk Ablaye Diouf Sarr loolu lan ngeen ciy wax yéen waa Yoff ah non bu fekkente ne bi loolu am na te Moustapha bëgg loolu ah jàmm doon bu fekkente ne aussi Ablaye dafa bëgg loolu ah na teg si yoon parce que un jeune buy doog a fël di def politique. ko te xam na fi mu war a jaar mu jaar fa. soo demee ba mu ba mu rejoindre ñëw si yow ah je crois bien que ne war nga mën a dawal au sérieux koi si sama xelaat su fekkee am na su fekkente ne am na ay wax day leer xaw ma nag ndax Moustapha rejoindre na Ablaye wala. ah ñun de ñu ngi xaar keneen. parce que booba ba léegi moom mu ngi fi man moom maa naan dañuy dañuy xoolaat keneen ba xam ndax kooku mën na mën a nekk si euh, lii nga xamante ne moom mooy bëgg-bëgg yoof waaye parce que yoof du du du jigéen kese dëgg la liggéeyal na jigéen ñi. mais ñun góor ñi sentiruñu suñu boppa si Ablaye Diouf Sarr euh, man de pour man maam Biram maam Biram Mbeng kooku man déglu naa ay liiwam ay programme am ak mu bëgg a bu yoof man déglu naa ko waaw bu dee si réseaux sociaux yi déglu naa ko ah émission yi mu doon def ah kale Mamadou El Hadji Mamadou Lale Mamadou Samb kooku déglu naa ko bu baax tak liiwam euh, liñ naan li mu fi bëgg andi loolu lu ñuy intéressé la ñun en tant que jeunesse yi en tant que tamit ñi nga xamante ni bëgg nañ yoof man daal kooku laa gis mooy maam Biram Mbeng biir yoof man moom ah, gisuma kenn koo xamante ne ni taxaw na biir yoof di liggéeyal waa yoof ah sama côté daal laay waxee man waaw mais waxew ma keneen koo xamante ne mu ngi def si biti waaw man daal sama côté gisaguma koo xamante ne mu ngi liggéeyal pour yoof waaw. mooy li ñuy war a ñun waayof ñum ñoo war nekk ay nit xam suñu bopp xam ñum ñooy ñan gis nga politiciens yi ngay gis ni ñoom ñëpp ñoo bokk benn parti dañ ñuy dugal rek ñoom bu rayante di am ñoom ñëpp seeni kër la ñuy toog kenn du leen gis ñun ñi nga xam ne ñun nga ñoo bokk suñu ndey bokk suñu baay ñoo war a suñu biir yaa ngi dégg ñu moytu ñi nga xamante ne ni ay nit yu féewle leen dañuy féewleloo nit ñi di jaxas seen nit ñi pour nit ñi di xeex seen biir. ñoom ñoo ñoom ñoo bokk benn parti bi ñuy ànd muy Abdoulaye Diouf Saraax Moustapha Tall moom ñoom ñoo ñoo bokk même kii ñuy àndal moo tax man bu ma soñoon ñooñu ñoom lañ leen tege ne la ñu jël biram ñi nga xam ne ñoom ay lébu la ñu jël biram ñi nga teg ka si jàll bi mu tegal ñu mu liggéeyal ñu suñu dëkk quoi franchement parle man loolu laa gis. dëgg yàlla bu fekkente ne nit la nit koo xamante ne que ñun moom la ñuy proposer pour mu nekk maire Yoff ñun am nañu ko. am nañu ko teg ki xalaat aussi bu bu fi nekkee mais dina liggéey Yoff parce que xale la ñun ñi bëgg nañu ko xale la mu ngi dugganteeg xale yi xam nga ñun jeexal nañu ah moom fa jëm soxna si kooku xale la mën na waxtaan xale yi xale la xam na jafe-jafe xale yi xale la parce que mu ngi dugganteeg xale yi te kooku. pare na aussi pour jàppale waa dëkk bi ndax koo xamante ne kii yow say propre moyen ngay jël di si jàppale nit ñi ci wàllu social kooku bu yoree mairie ah dina jàppale nit ñi bu baax kooku loolu daf ko doon na si ay waajuram kooku doon na koo xamante ne kii ah, jarul sax présenté waa Yoff ndax kooku Moustapha xelam ak xalaatam yëpp mooy liggéeyal yoof xelam ak xalaatam mooy defar jële xar kanamu yoof fi mu nekk defar yoof jàppale nit ñi aussi si wàllu social jàppale nit ñi aussi si wàllu emploi ndax ku ne xam na ne yoof dëkku pêcheur la waaye it nañu xam ne yoof dafa bari ay intellectuel dëkk pêcheur la waaye dëkk intellectuel la kilifa gu ne rek mën na fi génn mais pêcheurs yi tey bu ñu leen toppatoo woon normalement mais tey ku siy dem géej da ngay ñëw ba mën nga taal sa oto ba ci garage bi wala ci quai bi gaare sa oto dem ubbi sa versaire mais lu tax xalaatu ñu def ay verser ci ci ci ci ci booru géej gi pour mool yi mais benn mool yi dañuy am ay jafe-jafe pour dem mool yi dañuy am ay jafe-jafe ah mais lan moo waral maire bi nga xamante ne moom moom la ñu am mu nekk ak ñun dëkk ak ñun xam jafe-jafe yi pêcheurs yi dund mais lu tax taxawul taxawul pêcheurs yi pour jàppale leen ci yooyu mais di leen defaral ay mbaar mbaar boo koy defaral nit mooy kaay nga ker kaay nga bañ a liggéey donc li nga war a taxaw pour jàppale si nit ñi loolu mooy lijjanti leen ci wàllu géej gi ñu am ay euh, ay ay ay ay ay ay moyens ay moyens yoo xamante ne nañ am ay motooru gaal nañ am ay ay ay gaal ay projets yoo xamante ne dañu leen koy tegal. parce que bon politique moo demee noonu ay deal la rek kenn ku ne fi nga mën a jaar sa morom fa ngay jaar mais li si am solo mooy da ngay sincère te bon fi ñu toll nii ni ma la ko mën waxee ici à Yoff bon normalement maire bi solidarité am dafa des quoi dafa des lu bëri kon taal war na mën a am ah ñoom ñaar rek la engagé. bu fekkente ne booy bi mën na ko rejoindre baax na si nii nga waxee bu fekkente ne aussi amul ah ñii ko def it am na lu ñu bëgg si wax boobu bind boobu ñu bind bon la vie continue Moustapha xam na fi mu war a jaar na fa continuer jaar loolu mooy wax bi parce que tamit kuy ut dara fekk fi nit non kooku waru mën a ah lu mu la mën a wax waruloo mën a jox rek dem fekk ji ko si noonu quoi parce que bon yéen yéen fit na dèjà fii maire Yoff ku ne bëgg nga na ko doon. même innocent bi sax bëgg na doon maire mais yàlla moo koy jox doomu aadama waaw bu la ko joxee nag boo deful li ci war bu keneen ñëwee taxaw ah bu ñuy ñi àndeex kooku ndax xamal na yow yaa yaa teggi sa yoon rek loolu la waaw wax dëgg yàlla nag loolu jaaxal na ma. yooyu yëpp ay erreur la yooyu yëpp parce que aussi nit ki boo waxtaan ak moom sotteegul Moustapha Tall dafa am kilifa dafa am ñoo xamante ne ñi aussi euh, dafa staff donc Moustapha du ñëw wax ak yow rek nga génn posté même bu fekkente ne tey dafa dafa ñëwoon waxoon ak moom mais loolu du lu ñuy jog rek génn ko mais daf àddina yàkkamti baaxul yàkkamti li ñu nax yàkkamti ak yàqule ñoo ànd man nag bañuma ma ànd bi mais ànd buñ koy def mais dañuy xool nu ñu koy defee consulter ñii nga xamante ne ñii ñoom ñoo nekk ci clan bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii mais yow soo bopp nga jël sa décision bu bopp photo ak Moustapha poste ko ne Moustapha yow la àndal mais man loolu d'accord ma ci tey d'accord ma ci ëllëg parce que Moustapha du ma nangu ko ko sacrifier gis na man miy wax ak yow nii ah Moustapha bàyyi laa ci moom kilifa laa ci moom. du ma nangu nag ku jóg pour sacrifier ko parce que gis naa fi ay nit yoo xamante ne yi mais dañu ñëw fexe ba ñu ñëw ànd ak ñoom ñu posté ko fu ne mais ñooñu après léegi jaratuñu dara Moustapha ñu koy def noonu def nañu loolu mais loolu moo leen indil tey problème bi nit warul yàkkamti lépp loo gis si àddina mais dañ koy waxtaane après ñu door ko teg mais li ñuy wax sotteegul Moustapha yeggagul këram yow nga posté affaire bi ne Moustapha Tall récupéré nga ko mu ngi ànd ak yow mais mais am na loo xamante ne aussi ça sonne mal à l'oreille ah donc wala euh, <laughs> mu ngi noonu mais ñun aussi ñun duñu duñu ko nangu waaw bañu ñu ndëkk waxtaan ak moom na nga dégg parce que aussi ñoom ñëpp njabootu au euh, président de la république la ñoom ñëpp njabootu Macky Sall lañ mais njabootu Macky Sall bu ñuy toog di régler dara dañuy ñëw regla ko mais problème bi bu fekkente ne nii la nar a demee mais man day lii may ñaan son excellence le président de la république njabootam mu oo leen waxtaan ak ñoom teg leen ñu xool lan la ñuy mën a def pour dugg ci li nga xamante moom mooy élection yi ñëw président Macky maa ngi lay ñaan nga oo Ablaye Diouf Sarr o Moustapha Tall o képp koo xamante ne kii bokk na ci yow nekk fi ci Yoff ñu xool problème boobu nan la ñuy mën a def ba ñu bañ a réeroo ñu ànd bokk duggandoo ci élection yi nga xamante ne moom mooy ñëw ndax élection yi kat ay élection la yoo xamante ne yi élection yu am solo la si eh, président de si dëkk bi c'est président de la république donc man li ma koy ñaan mooy na def loolu. Safa xamuma ko daan naa ko dégg des années parce que euh, yàlla mooy dogal kenn ku ne fa ngay aw di xëy di daani doole mooy doon sa dëkkuwaay bon ñun géej rek la ñuy dem mais yàgg naa dégg ay rumeur très franchement recevoir na ma presque une vingtaine de jours li ka metti nag moo ma metti yoof la dëkk bëgg na yoof xam na lii fi war a dugg xam na lii fiy dugg xam na affaire bi ni mu demee ñi ci war a jot jotuñu si ñii ñu war a jàppale jàppale ñu leen lii ñu war a def defuñu ko fi moo tax mu fépp pour ñëw doon monsieur le maire dañ koy encourager pour que mu téye lii mu téye gëm ko parce que jigéen bu nee si kër te amul wëj du xam moom mooy kan du dëgg waaw kon nag bon loolu laa mën a wax mu Moustapha daal ku baax la parce que benn yoon lañ gisee mu mit li mu métitlu nag moo tax ma téye ko ne man du ma politicien mais nag yàlla may na ma loo xamante ne ni ah li si kanam rawuli bët maa ngeex moom mais bu rejoindre Ablaye dellu naa ginnaaw loolu moom bul ko effacé waaw merci beaucoup. maa ngi leen di sant ah, di leen gërëm ah, di wax aussi ah, seen actu donc euh, muy euh, vraiment àddina bi yëpp ñoo leen di suivre. addina bi yëpp ñoo leen di suivre si li nga xamante ne lii mooy liggéey bu am solo bi ngeen di def di waxtaan dem ci biir kër yi di dugg ci nit ñi di wax aussi di wane nit ñi lii nga xamante ne moom la ñuy dund te population ñenn ñi xamuñu ko état xamu ko euh, alors euh, population bi xamuñu ko donc yéen a ngi wane loo xamante ne lii lu laax woon la donc dañ leen di ñaanal donc euh, ngeen. am ay télé télé télé télé yàlla dara tooyu ko lu ngeen ko ñaan may la jërëjëf jëf merci beaucoup. ok ñoo koy. merci beaucoup. jërëjëf waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm. maa ngi leen di jaajëfal jaa ngi jëf merci beaucoup waaw. jaajëf ok merci. jaajëf merci merci beaucoup.